téléspectateurs yi tey ñu amaat mbégte bokk ak yéen plateau bi fii ci Equivox TV tey nag ñu ngi ci seen émission ganu Equivox ñu si dalal boroom xam-xam boo xamante ni Sénégal daanaka mën nañ ne ñëpp xam nañ ko mu di directeur général bu l'ASEPEX nekkoon fi maire bu Fann Point e, di itam euh, docteur en pharmacie industrielle kooku yi tamit nekk porte-parole bu parti bi di AFP moo di docteur Malick Diop docteur ñu ngi leen nuyu. maa ngi leen di fay di leen euh, nuyu di rafetlu surtout li oo tey jii fii nii ci jotaay bi nga xam ne mooy euh, ci Equivox TV euh, di rafetlu liggéey bi euh, di nuyu bépp doomu Sénégal bu nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew di ñu xool ak ñu déglu ñu ñaan yàlla nag tamit liñ fi wax muy loo xam ne daf leen di amal njëriñ mhm. suñu mbokk yi ci diaspora bi duñ duñ leen euh, mës di fàtte ñu ngi leen di nuyu ñoom itam ndax am nañ seen wàll bu baax a baax fii ci Equivox TV docteur li ñu bëgg a tàmbalee waxtaan bi moo di wàllum vaccin bi ñeel Covid 19 Sénégal jot na wàllam 200000 doses moo ñëwagum mais dañu gis kenn ni euh, bëri na ay incertitudes yu si am ci wàllu askan bi ndax seen xel dalul ci vaccin bi yow mi nga xamante ni docteur nga ci wàllu pharmacie industrielle vaccin bi looñ ci mën a wax. waaw damay euh, rafetlu rek déjà li nga xam ne Sénégal bokk ci réew yu nekk biir Afrique te tàmbali jël décision au plus haut niveau euh, ne dañu dugg ci stratégie vaccinale cest à da ngay mettre en place li ñu naan stratégie vaccinale naka nga nga nammee def li ñu naan ñàkk sa sa doomu sa doomu réew naka nga ko nammee euh, boo ko tàmbalee Euh, fan ngay tàmbalee ak cëppa ba cappaandaw ba naka nga koy euh, defe donc mhm. di rafetlu déjà loolu mhm. muy lu am solo ci li nga xam ne tey jii nii mooy euh, bokk ci ñi xeex mbas mi mhm. question bi nga posé nag bëgg naa peut-être mu gën a précise pour xam spécifiquement fan nga bëggu man fànn nga bëggu ñu faram-fàccee li nga xam ne moom mooy question yi mbirum vaccination parce am na lu ci bëri loo xam ne mën nañ ko ci wax mais comme dafa yaatu. Euh, su question bi gën a précis. man mm-hmm. dinaa la wax waaw vaccin bi si wàllu boppam. waaw réewu Chine la jógee Sinopharm moo ko defar. Mm-hmm. bi mu agsee fii ci Sénégal. Mm-hmm. askan bi li leen gën a ëlëm moo di réew mu nga xamante ni fa mbas mi tàmbalee. tey Sénégal moom moo leen jox vaccin bi déjà amoon na lu ci jotoon am mu di ñuy wax ni ki ndax don la Sénégal ministre bi génnaat Abdou Abdoulaye Diouf Sarr wax ni ki dañ ko jënd ci ñaari téeméeri milliards. maanaam tey ñaari junni milliards ak lu tegal tey li ñu bëgg xam mooy réew mi nga xamante ni fa mbas mi tàmbali tey ñu jox ñu suñu vaccin bi ndax xel mënul tey si wàll boobu. waaw dama bëgg wax na rek ñun ci li ñu liggéey parce que man euh, ci liñ ma tàggat ci loolu la mooy ci industrie pharmaceutique parce que mbirum vaccin gis naa ne ñu bëri ñu ngi ciy wax que muy ci biir réew mi walla ci bitim réew. waaye dafay loo xam ne c'est tellement important dafa am solo parce que ci mbirum euh, jàngoro naka la ñu fexe ba euh, fagaru euh, parce que dañ ne fagaru moo gën faju bu ñuy fexe ba fagaru naka la ñuy fexe ba fagaru le plus rapidement possible ci anam bi nga xam ne boobu la gën a baaxee ñi ciy wax nag comme mbirum garab la parce que vaccin garab la am ñaari façon garab am garab boo xam ne Euh, garab bu ñuy utiliser la pour koo xam ne dafa feebar ba pare ñu faj la ak dafa am garab boo xam ne prophylaxie la c'est-à-dire mooy dañ lay euh, dugal garab bi ci sa yaram pour que sa yaram préparé wu xool naka lay fexee ba ëllëg su su feebar bi ñëwee doomu jàngoro bi bu la duggee naka la sa yaram di euh, préparé woo sa soldaaru yaram di préparé woo pour xeex feebar boobu donc bu ñu nee mbirum garab nag pharmacien moo tax ñuy wax donc ñu bàyyi ñi nga xam ne ñoom ñoo xam garab wax ci garab tey jii nii comme ni mu ko doon waxee euh, souvent bu ñuy wax affaire tabax étage wala ay fondation ndax baax na ak baaxul mhm. man de kenn du ma ci poser question parce que amu ci amuma ci xam-xam mhm. donc euh, loolu lu am solo la tamit ñu ñu ñuy déglu ñi nga xam ne tey jii nii ñoom ñoo nekk ci mbir mi mhm. euh, Sénégal dafa teg li ñu naan comité consultatif bi nga xam ne moom mooy saytu lépp luy ñàkku ci biir réew mi loolu moo loolu mooy normal bu fekkee ne da ngay préparer vaccination euh, comité boobu euh, muy ay kàngam yoo xam ne tey jii nii ay pharmaciens lañ ay médecins et cetera ñoo xam ne ñoom ñoo ñooy saytu mbirum vaccination mhm. boobu direction pharmacie ñu ngi ci aussi direction de laboratoire laboratoire national de contrôle des médicament ñoo ñëpp ñu ngi ci biir mhm. euh, comité consultatif boobu ñoom ñooy xool stratégie bi naka lañ koy tegee xool itam bu ñuy tànn vaccin yan type de vaccin la ñu lañu euh, ñu la ñu la tànn donc réew mi euh, àdduna wërngal képp bi feebar bi ñëwee Chine la njëkk a ñëw donc c'est normal ñooñu nga xam ne ñoom ñoo tàmbali am feebar bi ëpp ci au départ yi ñu tàmbali ëpp yi ñoo xam ne ñooñu la mbas mi dal euh, ñu am également industrie pharmaceutique bu am doole bu am doole macha allah donc bu loolu amee ñoom mooy ci ñoom la ñuy njëkk xalaat ne mën nañ euh, ut euh, ut euh, vaccin bi ut loo xam ne tey ñu ne day faagaagal doomu jàngoro boobu donc moo tax ñoom dañu xarañ ci recherche xarañ ci affaire industrie pharmaceutique liggéey ko ni ñu ko war a liggéeyee maintenant ci biir du ma dugg ci détail yu prix ak yooyu yooyu amul solo mm-hmm. yooyu ministère de la santé mi ngi ci mi ngi communiqué mm-hmm. dina ci jox toutes les informations requises damay dugg rek sur les technique mm-hmm. pour que nit ñi xam fan lañ jëm ak naka lañ ciy jëmee vaccin yi nag euh, vaccin mooy lan tamit vaccin mooy lan principe bi lu simple la gis naa ñu bëri ñu ciy wax tamit mais ni ñu koy waxee dañu jéem a compliquer mbir bi da gis scientifique boo xam ne euh, du médecin du pharmacien day jéem a ñëw di ci wax te looy affaire bi amul xamantu da nga koy xam wala nga ñàkk ko xam donc boo ko bu fekkee ne bi gën a dangereux mooy koo xam ne day xamantu xam na ci ay bribes mais di ko jaxase donc dafay jaxase boppu nit ñi vaccination vaccin boo xam ne tey jii nii dañ koy dugal ci industrie pharmaceutique yoo xam ne dañuy def recherche bi comme ñun man bokk naa tey ci nga xam ne bu ngeen déggee chloroquine phosphate bu ñu naan Nivaquine ci ñi mujj mujji defar Nivaquine ci biir Sénégal ci laboratoire SIPOA man nekk naa fa di defar Nivaquine di ko contrôler avant ñu koy conditionner di ko mettre sur le marché ak yeneen yeneen garab ak ay ay antibiotiques ay Paluject yooyu yëpp ñun ci yooyu lañ doon liggéey. Euh, laboratoire bu fekkee ne da ngay def recherche recherche du foofu ngay amee sax xaalis foog nit ñi xam loolu ba pare recherche dafa mel nii ngay ngay ut or wala ngay ut jamaa wala ngay ut pétrole di nga ci dugal xaalis mais du wóor na sa xaalis dina dellu si parce que laboratoire yi en général quatre-vingt-quinze pour cent recherche yi ñuy def dañuy def recherche recherche recherche mais du foofu en général bu ñu trouver moom macha allah dinañ ci am lu bëri. mais boo trouvé wul da ngay ñàkk lu bëri moo tax ñoom dañu concentré wu ci defar garab di ko contrôler di ko mettre sur le marché temps bu ndaw la ñu consacré ci recherche te liñ ci xaalis bi ñu ciy def du takku moo tax pour garab il faut huit à huit ans minimum pour que ñu defar ñu wut vaccin ñu trouver vaccin mais vaccin bi ñu defar si dix mois moom ndax mun naa efficace ci loolu laay ñëw ba ma boo ma dégloo rek di nga comprendre waaw dañu dañu bëgg mu leer docteur parce que tournure bi finalement tournure sax dañuy mujj réer. déedéet. Ah. mënoo li may wax. Mhm. lu leer naññ laay wax munoo ci réer. mais nag munul loo xam ne dañ koy sorxo sorxo lu sérieux la lu caaxaan te man li may wax doo doo ko teggi. Mhm. da boo boo defee recherche nga laaj laboratoire loolu la génnewaat donc mënuma koo teggi mënuma ko sorxo sorxo sinon bu ko temps bi lu ñu wax ci leneen. non dañ ciy wax moom waaw moom bu ñu ñëwee moom. plateau bi day leer moom. voilà donc euh, donc ma ñu xam nekk que garab minimum vaccin pour ñu defar ko minimum c'est huit ans wala neuf ans moyen bi c'est fukki at ak ñaar moom lañuy defaree garab lu tax parce que xaalis bi du doy ñi ciy liggéey tamit ñi ngi tal leneen ñi ngi tal production ñi ngi tal liggéey ci leneen du ñu liggéey comme fi li xew fi mu ne nii mbas bi bi mu tàmbalee rek États-Unis dugal nañ six milliards de ci recherche vaccinale yeneen réew tamit dugal xaalis bu bëri dès le départ amoon na presque dix milliards de dollars yoo xam ne industrie pharmaceutique yore woon nañ ko pour rechercher kàngam yi tamit mu am li ñu naan un réseau de l' industrie pharmaceutique boo xam ne ku ci nekk lu mu ci xalaat rek dafay koy échanger ak ñi si des labo yi di liggéey vingt quatre heures sur vingt quatre ñun bi ñuy nekkee labo au temps da ngay liggéey ci production ci conditionnement et cetera bu dee recherche la mun nga ko ci def ci semaine bi deux fois une heure trois fois une heure et cetera mais léegi ñuy liggéey vingt quatre heures sur vingt quatre kàngam yi di ci nekk en permanence bu ma jëlee phase yi dafa ne ñu naan essai essai essai préclinique essai préclinique la ñu tàmbalee bu fekkee ne dañ koy def ci ci euh, cobaye yi ci janax wala nga dugal ci laboratoire di liggéey boobu mun na def ñaari at waaye bii boo defee weer chaque jour nga ciy liggéey kàngam yi di ci liggéey mën nga def li ñu naan criblage molécules yi nga xam ne yëpp indi nañ ko ñu xool naka la ñu est-ce que molécules yooyu dina baax pour vaccination bi après nga dugg ci phase clinique phase clinique bi essai clinique essai clinique dafa am ñetti phase ak quatrième boo xam ne dinaa si ñëw léegi ñetti phase yi lan bu njëkk bi mooy bi ñu naan phase boo xam ne dañu xool naka la yaram bi di tolérer garab bi ñu xool ndax garab bi du def effet secondaire ci yaram bi mooy phase bu njëkk bi phase bu njëkk boobu buñ ko buñ ko passé mu dugg ci ñaareelu phase bi phase bu njëkk bi normalement daan na def ñaari at ñetti at bi ñaari weer ñetti weer mu tegee wat ñu jël li ñu naan beneen phase boo xam ne dañu seet li ñu naan immunogénicité immunogénicité mooy lan euh, dañu fexe ba xam suñu dugalee produit bi ci sa biir yaram est-ce que sa soldaaru yaram dinañ yëngu est-ce que sa soldaaru yaram dinañ jóg xool naka la ñu xeexee li ñu dugal ci biir yaram bi loolu mooy luminogénicité daan na toog ñetti at ñeenti at pour ñu def ko bii ñeenti euh, ñetti weer ñeenti weer def nañ ko parce que dañ ko tënk liggéey ci liggéey boo xam ne bu mucc ayib la ak ñi nga xam ne ñoom ñooy kàngam yi ci war a liggéey te loolu yëpp dañ koy def di ko dugal commencé dugal ko ci nit te it dama bëgg ñu xam ne volontaire pour am volontaire yi nga xam ne moom ñoom ñooy ñoom la ñuy def vaccin bu fekkee ne vaccin bi garab la boo xam ne feebar feebar bi feebar la boo xam ne melul nii bii amul ay millions de personnes yu ko am pour nga am benn volontaire sax dafay doy waar mais bii am volontaire dafa yomboon parce que feebar bi dafa lëmbee àdduna mm. mais feebar bi virus bi mu ngi muté wu tey li posé waat problème aussi. bul dugg ci mutation dinañ ci dugg après mutation bi parce que virus bi. bu muté woo mënuma vaccin mënuma mais il y a beaucoup il y a beaucoup de variants docteur. non s'il vous plaît il y a beaucoup de variants aujourd'hui on parle de variant britannique variant sud-africain mais aujourd'hui bu fekkee am nañu vaccin foog vaccin bi tam ñoo xam spécifiquement ban variant la siy traité ou pas. xam nga maa ngi phase 2 ngay dugg ci variant. waaw mais mais parce que man. en fait yaa ngi jaxase sa bopp non la la la réponse est tellement vague quoi si man parce que finalement dama réer ci sa biir ci sa biir réponse alors que nu boo duggee ñun si technique rek dañuy réer li ñu bëgg mooy vraiment des caisses des réponses concises yoo xamante ni kii seetaan ba ci ki nekk ci euh, fële ci ci kilikoro dina mën a comprendre facilement quoi mais su fekkee des questions techniques ça devient ça devient pour ñun ñi nga xamante ni am ñu si xam-xam boobu. pare nga. at a ngi nii may wax ak doomu Sénégal di leen ko expliquer simplement li may wax ni waa Ganguel Soule fële ca damay wax ak ñoom damay wax ak ñi nekk euh, Salemata Saraya ñi nekk Thiès ñi nekk Ndakaaru ak professionnels yi nekk ci biir garab parce que loolu moom mooy tax may wax damay wax ak non seulement doomu Sénégal yi nekk ci euh, biir réew mi ak ci bitim réew te damay wax itam ak professionnels yi nga xam ne li may wax ni am na loo xam ne dam leen di ko ci yokkal ci li nga xam ne moom mooy seen xam-xam est-ce que comprendre nga li may wax donc man ñooñu ñëpp laay waxal li may wax dafa am chronologie chronologie boobu duma ci génn yaa ngi wax ci loo xam ne dinaa si ñëw plus tard mais du sujet bi actuellement suñu passé deuxième phase dañu yegg si si li ñu naan troisième phase boobu la ñu naan preuve de concept mooy ñu yokk volontaires yi ñi nga xam ne d'accord nañ ñu def leen vaccin bi bu ñu ko yokkee si lañu xam ban dose lañuy def ci vaccin bi fan lañ koy def ñaata yoon lañ ko ciy def c'est-à-dire rappel bi kañ lay nekk bu ñu jógee ci loolu vaccin boo gis tey jii nii yooyu yëpp li may wax nii yëpp li ñu moo naan candidat vaccin yéen a ngi dégg ñu naan candidat vaccin vaccin damay gis sax ay professionnels ñuy wax ñuy jaxase entre candidat vaccin ak vaccin du benn li may wax nii yëpp essai clinique ak essai clinique ay candidat vaccin la cest ba léegi amaguñ li ñu naan autorisation de mise sur le marché ci organisme bi nga xam ne moom mooy yore lépp luy vaccination si seen réew ak ci région bi bu ñu paree loolu ba candidat vaccin bi ñu gis que ne vaccin bi baax na yaram bi day réagir ni mu waree su feebar bi ñëwee dina ko xeex également c'est bien toléré c'est-à-dire utiliser nañ ay junney junney nit jam nañ leen jam nañ leen ko gisuñ effet secondaire yu tax ñu ñu arrêté vaccination bi bu ma joxee jëlee vaccin à ARN messager euh, Pfizer BioNTech def nañ 43 000 phase 3 am na 43 mille volontaires yu ñu ko jam te ñun bu ñu daan def di def 10 ans. doo am 5000 volontaires donc moo tax affaire bi gën a gaaw ñu def ko mëtul at vaccin yi génn bi vaccin yi génnee troisième phase boobu bu ñu defee phase benn phase ñaar phase ñett ñeent ñu yegg si li ñu naan phase de pharmacovigilance le vaccin bi dugg na sur le marché ñu ngi koy yóbbu ci réew yëpp comme Sénégal tey jii nii jot vaccin bi nga xam ne mooy vaccin bi jogee Chine dañu naan phase phase de vigilance bu ñu jamee nit ki ñàkk ko réew bu gis benn nit bu am benn effet secondaire boo xam ne correspondrul ak effet secondaire classique yi ñu am daf koy yéegal ci li ñu naan pharmacovigilance lenn rek lañ mën a def soit ñu arrêté lépp arrêté loo yi wala ñu xool dans quelle mesure reprendre les lots yi nga xam ne moom lañ euh, moom moom lañ utiliser woon dama bëgg également mu leer bu ñu nee effet secondaire vaccin bokkul ak effet secondaire garab bi nga xam ne moom la ñu fajee xanaa rien à vaccin bëriwul effet secondaire par essence par essence mooy lan en général moom vaccin ni ñu ko ni ñu ko defaree effet secondaire am mënul bëri dama bëgg mu leer également si mu ñëpp c'est c'est ça la le principe mais amul benn vaccin bu boo xam ne amul effet secondaire amul ça n'existe pas fokk mu am effet secondaire mën nañ la jam nga am euh, fi ñu la ko jamee mu am euh, je ne sais pas mu am inflammation et cetera comme dañ koy dugal yëngal sa sa sa soldaaru yaram sa yaram mun na tàng et cetera mun nga am benn syndrome euh, syndrome fébrile et loolu yëpp mën na nekk mais amul zéro effet secondaire ci vaccin te it dama bëgg ñu xam ne vaccin kenn du ko obligé kenn du loo xam ne da nga naan tey dam lay dóor tey ñu vacciné la déedéet yow dañ lay convaincre ba mu wóor na la yow vaccin moo baax ci yow bu la wóoree nga d'accord ne dinañ la vacciner ñu soog la vacciner loolu tamit lu lu lu am solo la naa ci type de vaccin yi damay concentrer rek ci vaccin bi nga xam ne moo fi yegg si parce que vaccin yi bëri na mun naa ci dugg ci détails yi mais damay dugg rek ci vaccin bii nga xam ne tey jii ni moom mooy ñëw fii euh, muy vaccin bi jógee Chine alors vaccin bi laboratoire éponyme vaccin Sinopharm lu tudd laboratoire bu bu bu mag la boo xam ne yàgg na defar garab yàgg na defar vaccin Euh, même vaccin yi nga xam ne pour virus la yàgg na ko defar donc am na technique bi am na am na am na tamit historique bi donc laboratoire industrie pharmaceutique sañoo naan da ngay génnee loo xam ne ëllëg dina lor doomu aadama exprès parce que boo ko defee rek ëllëg sa sa label lay yàq donc dama bugg également loolu mu am nit ñi nit ñi xam ko beneen bi itam euh, am na solo mooy ban principe la bii mooy principe njëkku vaccination yi ak yu mucc comme ça nit ñi gën a comprendre principe vaccination bu njëkk lan la da ngay jël doomu jàngoro bi su fekkee ne day dund nga rey ko virus nag du dund mais na ñu jàpp ne day dund rek pour explication bi gën a yomb pour sama mbokk yi nekk fële Fuuta Gàngael Sule ñi jàpp ne doomu jàngoro bi day dund dañ koy dañu utiliser produit chimique utiliser chaleur rey ko nga xam ne dootul multiplier wu xam nga virus lu tax muy transmettre par la salive lu tax tey bi ma ñëwee fii may nekk di def ay gel yooyu parce que virus bi si biti du multiplier wu mais day dafay mel nii luy dund ba léegi moom li ko li ko intéressé mooy ëllëg kenn teg loxoom ñëw dugal ko si yaramam bu duggee si sa yaram mu dem sa cellule su duggee ci cellule mu multiplier wu après faagaagal la dem sa dem sa xëtër dootoo mun a noyyi dem sa deret def ko mu woy ba ba ba yóbbu la kon lan moo tax tey jii nii ñuy utiliser vaccin yooyu vaccin yooyu lan la euh, lu tax mu yegg ba foofu parce que yaram bi xàmmeewu ko yaram bi mun na xàmmee paludisme mun na xàmmee euh, tuberculose parce que ñàkku nga et cetera mun na xàmmee yu bëri soldaaru yaram yi mun nañ ko xàmmee mais xàmmee wuñ tey virus bi nga xam ne moom mooy joxe mbas mi fi nekk euh, euh, vaccination vaccin bi moom dafay indi doomu jàngoro bi mais doomu jàngoro bu ñu rey ñu rey ko ñu dugal ko ci ci ci pikiir bi jam la ko buñ ko buñ ko jamee soldaar yi ñëw soldats yi bu ñuy ñëwee objectif bi mooy lan soldats yi amuñ gànnaay pour rey ko parce que xàmmeewuñ ko donc defaruñ gànnaay pour rey ko donc dañuy ñëw xàmmee ko jox ko li ñu naan les cellules mémoire nga xam ne même su dee fileeg déwén la buñ ko gisee am cellule mémoire yooyu dañu génn xàmmee ko benn ñaareel bi xàmmee rek doyul parce que xàmmee taxul nga rey nga defar li ñu naan ay anticorps nga defar ay gànnaay comme ay pistolet yoo xam ne bu ñëwee rek da ngay utiliser sa pistolet yi rey ko boobu la ñu indi fii actuellement deux cent mille doses indi ko fii euh, réceptionné ko donc mercredi dernier deux cent mille doses nag mooy cent mille personnes xam nga cent mille personnes du loo xam ne dafa bëri parce que cent mille personnes da def benn dose tey ñetti ñetti ay bës nga defaat beneen dose moo tax ñu jël ñu ne ah ñan ñoo ëpp euh, possibilité am feebar bi mooy tey ñiy faj ñu ne ñooñu nañ leen ñàkk mooy les médecins les pharmaciens les les infirmiers sages-femmes qui sont en première ligne ñeneen ñi ñan la mooy ñi nga xam ne tey jii nii bu ñu feebaree seen soldaaru yaram tal nañ leneen lu dul mbas mi tey koo xam ne dafa am jabet seen soldaar ñi ngi xeer xeex jabet koo xam ne dafa am cancer soldats yi ñu ngi xeex cancer bu mbas mi ñëwee dafa leen di faagaagal donc ñi ne ñooñu ñu fexe ba boole leen ci ñi ñu ñàkk nga xam ne comme seen soldats yi ñu ci bëri ñu ngi xeex yeneen feebar ñi am li ñu naan comorbidité yeneen soldats yi dañ leen di jox ay gànnaay yoo xam ne su mbas mi ñëwee ñu rey ko su su doomu jàngoro bi ñëwee ñu rey ko donc ci loolu ñu jël troisième âge ñi nga xam ne dépassé nañ euh, juróom-benn fukki at. plus de 60 ans euh, ñi nga xam ne ñu ngi ak ay diabète cancer euh, ñi nga xam ne ñu ngi ak euh, hypertension artérielle ak asthme donc ñoo ñëpp ñu ne nañ leen ci boole fexe ba dose yu njëkk yi ñu ñu ñu ñu injecté leen ko voilà communication ngay wax voilà parce que li ma njëkk a wax noonu stratégie vaccinale la mooy le ciblage mooy nga jël dose yi nga jot nga xam ñan nga koy njëkk a ñàkk ñan ñooy njëkk a ñàkku ñan ñoo si tegu ñan ñoo si tegu ñan ñoo si tegu loolu stratégie vaccinale la dafa am communication bu ngeen gisee communication am na euh, li ñu naan le SNEPS SNEPS moom mooy euh, service bi nekk ministère de la santé yore lépp luy communication te nga xam ne ñoom ñi ngi ci région yëpp di dugg ci kër yi di di di liggéey ak ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy euh, li ñu naan les porteurs c'est pas des xaw ma lañ porteurs de voix lañ leen di ooyee xaw ma ñooñu en tout cas c'est des Euh, c'est des identités remarquables voilà les identités remarquables ñi nga xam ne tey c'est des mooy délégués de quartier yi chefs de quartier yi les maire euh, boole ci gouverneur yi boole ci préfets yi et cetera ñuy communiquer nit ñi euh, également la la la la presse bi nga xam ne tey jii nii visuel audiovisuel ñi nekk également sur le net et cetera pour ñu joxe la bonne information parce que le problème de la vaccination dafa am euh, également ñi ngeen ñi ñi euh, ñi nga xam ne dañu wax di liggéey si la théorie du complot am na ñoo xam ne tey jii ni seen chaque jour chaque jour dañu yeew suba ak ngoon di jéem a def ay découp euh, ay recoupement fexe ba génnee dugal si bopp nit ñi ne vaccin day rayee walla day voilà ci mbas ci ci presse bi wee non ah, non non waxuma déedéet waxuma waxuma waxuma organe de presse. parce que en fait ça a commencé par le ministère de la santé parce que dem nañ ba si biir seen communication mënatul convaincre nit ñi ça pose problème finalement sénégalais yi seetaantuñu communiqué bii ñu jàllale di 10 heures. non non non non parce que bëri na lu ngeen wax si mbas bi tamit. déedéet li may wax ak li ngay li ngay wax c' est deux choses différentes c' est dégluwoo ma bu baax en fait dama ne man waxuma sax Sénégal. dama ne dafa am presse bi ngeen di presse bi ngeen di bés bu nekk ñu ngi def si si xel ñu ne la théorie du moo tax ma ne dégluwoo ma parce que yaa ngi doon yaa ngi doon xool. waaw mais dégluwoo ma dama ne. dégluwoo ma baax. dama ne la ñiy liggéey ak SNEPS ñiy liggéey ak ministère de la santé mooy ñi nga xam ne ñooy délégué de quartier yi chef de quartier yi maire yi gouverneur yi ak la presse parce que mbas mi bi mu commencé ba léegi presse bi organe de presse yi dañu joxe seen ay plateau. di di di joxe seen ay euh, ay ay euh, émission sax yoo xam ne pour nit ñi spécialiste yi ñëw wax ak doomu Sénégal wax leen fan lañ jëm fu ñu toll et cetera parce que du rek effectivement communiqué boobu ñuy def am na lu bëri loo xam ne tey jii nii le docteur Ousmane Gueye je je le salue en en passant ñu ngi koy def ci ci ci ci euh, ci biir Sénégal ci biir réew mi si plateau yi et cetera pour def ay sport yooyu yëpp ñu ngi koy def. mais dama ne pourquoi ñuy def loolu parce que vaccin dafa am recherche vaccinale dafa am mise en œuvre vaccination dafa am également ñoo xam ne c'est des adeptes de la théorie du complot ñoo xam ne chaque jour suñu yeewoo ñi ngi ci àdduna wërngal képp nag ci Occident nag lañ ëppee dañu créer def ay recoupement génne ay vidéo pour wane ne ah vaccin bi de dañ ko indi pour faagaagal waa Afrique pour faagaagal waa Amérique du Sud européens yi tamit ñu wax leen ne ah vaccin bi bu ñu ko kiiyee c'est pour que dootu leen jur et cetera ñooñu ñëpp ñu ngi liggéey ci loolu xam nga ñoom bu ñuy liggéey ci loolu xam nga kiy liggéey di yàq pour defaraat dafay métti donc da ngay gis effectivement soo xoolee Sénégal ci boppam euh, dañu jot loolu chaque jour ci vidéo yi bu ngeen gisee vidéo yi di ngeen gis ay ay ay espèces u spécialistes sax ñëw di wax ci ay vaccin di wax lu leen neex donc ci vidéo yooyu ci vidéo yooyu euh, am na nit boo xam ne dafay am am citoyen classique day ñëw xool gis ni ah kii de professeur lii la muy wax ci vaccin xëy na sax xamu ci lu bëri mais wax ne waaw man de vaccin bi ma kiiyee gis naa kenn ku dee fii ñaar ñi dee nañ fii d'ailleurs wax nañ ne boo ko kiiyee dootoo jur et cetera mais mën na dugg si bopp nit finalement nit ki dafa naan ah attention man de wóoluwuma wala damay xaar et cetera donc yooyu yëpp day am donc moo tax communication bi du loo xam ne day yomb Euh, comme j'ai dit, euh, le, le, le, problème qui se pose, surtout Sénégal, c'est que demoon nañ ba benn instant xeexoon nañ ko xeexoon xeexoon nañ ko ba euh, finalement euh, voilà euh, mi ngi doon waaj a dem mais nit ñi pour ñoom jeex na corona jeex na koo corona man man je me rappelle su ma daan sol sol masque dem damay sol masque ñu ne la mel ni extraterrestre ñu ne mais yow corona jeex na et cetera donc finalement les gens ont continué à reprendre activité de regroupement yi affaire bi tas si biir économie bi euh, du loolu moo koy moo moo mooy mooy régler problème bi du problème couvre-feu l'économie euh, pour man pour mu relancer wu il faut que vaccination bi mu dox fépp àdduna wërngal këpp de tell sorte que nit ñi mën a continuer dem dem beeg dikk bi ñun soo xoolee Euh, les exportations chaque année dañu doon am plus de de 10 pour cent chaque année parce que 200 milliards moo daan yokk 2019 2020 lañ def record des exportations jóge 1600 milliards dem ba 1985 milliards de recettes d'exportation Sénégal loolu su ko def secteur pêche TIC et téléservice les mines euh, l'artisanat et cetera mais ren delloo dellu nañ ginnaaw parce que tout simplement foire amatul salon amatul exposition amatul rencontre économique et commerciale amatul dootoo mun dem signer contrat boo bëggee yónni fret wala nga yónni par bato les coûts de production sont élevés les coûts de transport sont élevés donc doo nekk compétitif à l'international donc loolu yëpp mu mu sonal wet wet wet wet euh, suñu suñu société yi et je pense que le plan de résilience économique et sociale a pu aider quand même beaucoup de sociétés surtout euh, plan Kiray liggéey bi nga xam ne tey FONGIP moo ko yore woon où il y avait 200 euh, milliards yoo xam ne entreprise yi nga xam ne fexe woon nañ ba daxuñ seen personnel garder salaire yi à 70 pour cent ñu jox leen ay prêts yoo xam ne dina leen permettre ñu ñu euh, ñu ñu aider euh, aider aider seen société bi bañ a daanu il y avait d'autres plans il le plan bi nga xam ne DR moo ko yore woon avec 100 milliards am na également beneen plan bu 200 milliards boo xam ne FONGIP a mis 70 milliards de fonds de garantie banques yi di lebale surtout fonds de roulement et éviter également yenn investissement yi ñu waroon def sur l'année ñu yóbbu ko l'année prochaine il y a eu également les vacances fiscales yoo xam ne aidé na beaucoup les entreprises nga xam ne entreprises yi dañu waroon euh, reverser TVA ñu ne téye ko ba après euh, waroon fay l'impôt ñu ne la xaaral téye ko ba ba ba ba ba ay diir nga soog a fay et cetera donc ça quand même ça a beaucoup aidé les entreprises et les entreprises sont très fatiguées parce que corona daal vraiment moom bu demoon fi mu ne nii Euh, dina dina soulager toutes les populations. d'accord agsi nañu si ñeexantalu waxtaan bi ndax temps dañu xoj benn question bu ñuy jeexalee rek ci tënk ndax xalaat nga jëlaat mairie point e? ah mairie point e, xam nga comme j'ai dit bon peut-être que c'est pas l'urgence l'urgence bi Covid bi la mais je sais que bon man euh, xam nga j'ai toujours été man point e laa juddoo foofu laa yaroo man foofu laa dëkk point foofu laa dëkk sama. Euh, ma maison familiale est au, au, point E man ma maison est au point E je suis toujours avec les populations les jeunes les femmes euh, di leen aider ci lépp lu ñu def euh, bon effectivement souvent foo dem dañ naan la waa mais yow dellu sil dellu sil dellu sil mais loolu bu jotee dinañ ci waxtaan ci biir parti bi bu ñëwee xam xam nga bu ñëwee rek dinañ si dinañ si kii parce que bu jotee euh, dinañ décider AFP kan lay teg man maay responsable bi c'est vrai mais nañu xaar ba bu yegg si ñu décider kan mooy euh, kan kan la ñu teg euh, xool suñ coalition bu njëkk coalition Benno Siggi Sénégal kan la ñu teg coalition Benno Bokk Yaakaar kan la ñu teg et su yegg rek bon incha allah population yi dinañ dinañ. incha allah ça a été en tout cas un plaisir de vous accueillir euh, sur ce plateau de Ganu Equivox docteur Malick Diop ñu ngi lay jaajëfal. maa ngi leen di fay di wax rek ne euh, dem leen di féliciter si liggéey bi li ma remarqué fii bi ma yegg see juste euh, mooy remarqué que ne c'est une équipe très jeune. et euh, au Sénégal euh, espoir bi c'est la jeunesse euh, la jeunesse bi nekk ci mbedd bi di sànni xeer wala yooyu c'est la jeunesse qui travaille qui qui qui est professionnelle te li ma fi gis yëpp loolu la mooy liggéey professionnel Euh, question yi posé nga ay question ma tontu la xam nga man. waaw noonu la noonu noonu la sax man comme j'ai dit je suis pas non noonu la man man sax du du ma client facile <laughs> donc euh, voilà donc voilà donc donc c'est important c'est important que dans le cadre de la de la de la du travail surtout de la presse que mu am ay jeunes ñoo xam ne ils sont qualifiés et ils sont te loolu laa gis fii donc ma leen di ci remercier di leen encourager également ci liggéey bi di espérer que liggéey bi dina gën a jëm kanam incha allah. merci beaucoup euh, mu nekkoon euh, docteur Malick Diop nekkoon euh, ganu Equivox tey si suñu émission bi ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje fii ak fan yu néew incha